beneen affaire bi mooy euh, affaire bu saa yi nee na ma Bouba Ndour Bouba Ndour du ma tontonte ak moom vraiment. ah si mais non tontonte xala dafa joxe regard non dafa naan xam nga lan mooy sama problème man dama ku ne na ci wax wala xalaat ko ci lu neex aw ma ci tant que saaga woo xam nga man xoolal la preuve ñi ma ñi ma lire sama discours liminaire. ñooñu ñëpp li ñu wax ci d'accorduñ ci li ma wax mais respecté naa li ñu wax. non non non bu non même bu ma doon toog ak moom plateau garaawul xam naa ni maa ngi doon toog ak moom plateau jàkkaarloo te loolu yëpp xam naa ko mais garaawul xam nga na wax lu ko neex man awma ci problème voilà. xam nga li yàlla nañu yàlla musal ci nga bind libre kenn waxu ci li livre na ñëpp wax wax ji lu mu gën a baax mu gën a bari lu mu gën a bari mu gën a baax parce que succès la ba waxuma dara sax waaye. wax ji dafa tax ñu jaay jaay livre bi ba xamatuñ lu koy jaay lu ñuy jaay xam nga donc garaawul loolu yëpp day defal yàqul dara bon Ousmane Ba ni ma euh, kii euh, waaw kii ci livre ni ma ci livre bi man dama ci tàgg nee na Elmat Niang nee na Elmat ci livre bi man dama ci tàgg Macky Sall ak njabaram ak réalisation. dama naa xas ci Ousmane Sonko mais yow doo mbakki doo mbokk Macky Sall doo mbokk njabootam. Elmat sincèrement boo nee dama tàgg Macky Sall ci libre bi mooy doo mbokk Macky Sall doo mbokk jabaram boo nee dama xas Ousmane Sonko ci libre bi mooy dégguloo livre bi liiroo livre ku ni man dama xas ci livre bi mooy déggoo livre bi liiroo bi amul benn chapitre bu ma def analyse politique ci réew mi boo xam ni teguma laa dualité entre xal Macky amul xam nga waa Pastef dama dama yaakaar ni mënuñoo lire quoi non mënuñoo lire non honnêtement mënuñu lire livre bi xoolal ñoom seen combat livre bi mooy arme bi ñu gënoon mën a am ci seen combat pour li li ci seen dund lii nag raw na leen waaw xam nga lu tax parce que dañu concentré non non c'est li ma la wax c'est très important liiral boo bëggee xam ba xam livre bi dafa baax ci ci Ousmane Sonko wala liiral le chapitre sur la tache noire d'une troisième candidature sur l'histoire du Sénégal lépp wala nga lire cette affaire Adji Sarr Sonko qui fait l'affaire de Macky Sall liir ko nga ma ne waxuma nga liir ko liir fanatique da koy liir liiru borom xam-xam wala nga liir kon introduction bi nga xool introduction bi nga xam ne mooy partie bi ëpp importance ni mu sutee nga liir ko nga xool ba xam liir bi day xas Ousmane Sonko et puis attends il faut moo wax leen dara ci Ousmane Sonko pour ngeen xam Ousmane Sonko je n'ai absolument aucun problème avec Ousmane Sonko il faut ngeen xam ko Ousmane Sonko mooy lan dañoo man ak moom histoire personnelle xam nga mooy lan man ak moom ñoo bokk ci même université bi ñu jàngee moom dafa jàngee université Saint-Louis ba bari bi mu mu def concours dem ENAM man ma jàngee université Saint-Louis am dem yog sama jàng ci réewu tubaab bi n'est-ce pas muy nit koo xam ne nii il existe dans le champ xam nga seen àdduna loo gis ku ne dafa am rôle ku ne dafa am ci loo nekk Ousmane Sonko rôle am waar bi muy bàyyi mooy politique c'est normal mi ngi ciy def li muy def man waar bi may way mu baar waar bi may bay mooy journalisme maa ngi ciy def li may def àdduna noonu la donc ma créé Yewwi bos invité ko mu ñëw ñu def interview yaa ngi dégg ma créé Yewwi Post invité ko mu ñëw ñu def interview mu wax wax boo xam ni boo demee ci interview bi ni ko gis mu tàmbalee interview bi ni ma grand ma kontaan jàkkaarloog yow parce que man université bi ma ñëwee yow ak ñeneen ñu mel yow lañ ma jox comme modèle donc fierté la pour man ma ñëw jàkkaarloog yow parce que ci yéen lañ doon roy bi ñuy jàng foofu ñu pare interview bi tëju wax ci Sénégal mu wax moo wax joo xam ni waxu nit la dégg nga ma ci engagement lan moo tax mu jël politique et cetera

ñu waxtaan ma wax ko li ma xam ni force yi nga xam ne jàpp naa ni war na leen bàyyi xel ci yoonam ba àgg fi mu jëm donc aw ma benn benn problème ak Ousmane Sonko au contraire boo liiree bi da gis ni maa ngi rafetlu bu baax taxawaayam mais attends j'ai écrit dans ce livre nii palais bi li muy neex neex oru palais bi li ñuy rafet rafet rafet lambri dóoridu palais bi li muy neex neex neex Macky Sall bu fa tuddee Ousmane Sonko moo koy teree nelaw bind naa ko wala bindu ma bind naa ko wala bind ma ko. leneen li nga bind mooy coow li. bind naa ko wala bind ma ko. voilà Sonko dañu am ay xarit yu ñu bokk. xam nga Sénégal Sénégal dafa non dafa naan xoolal xoolal Sénégal Sénégal Sénégal dafa tuuti. gis nga dédicace boobu indi coow li ki tax ma defal ko Ousmane Sonko xaritam la sama xarit la dañoo bari xarit yu ñu bokk. bari fu ñuy retrouver wu tu ma respecté engagement am ci politique cër bi ko yàlla jox ci politique ci Sénégal ma delloo ko ko parce que yàlla moo ko def mais nag du yàlla du yonent bi du kilifa diine da nga wax te damay def distinction man entre relation yi ma am ak nit ki bu may def sama métier ci politique ni may waxe ci moom xam nga ne Macky Sall sama mag la de Macky sama mag la lool depuis 2001 sama mag la sama mag la trop trop trop depuis 2001 laa wax pourtant bu may wax ci li mu bind boo lii léeri bi da ngay xam ni amul lenn lu ma jàpp ni waroon na ko def te defu ko te bindu ma ko ci livre bi Amadou Ba sama mag la de. mais moo euh, nga defal Elmat danga may déglu nag. xam nga tey xam nga xam nga fexe ba ba maa ngi wax da ngay bàyyi wax. Amadou Ba Amadou Ba déglu baax la ma Amadou Ba sama mag la de sama mag la waaye xam nga àdduna man je du ma xam nga am na ñoo xam ne nii am na ñoo xam ne Sénégal dafa am la ñuy dund guddi ak lu dund man meluma noonu non Amadou Ba sama mag la. mais boo liiree la problème Amadou Ba ci livre bi xam ne li ma xalaat ci taxawaayu politique am yëpp bind naa ko ba mu jeex tàkk. parce que nit ñi il faut ñu def la part des choses entre entre ñu distinguer entre rapport personnel yi ngay am ak nit ak li nga xam ne bu réew mi taxawee ak intérêt mi taxawee ni nga war a waxe man loolu laa gëm. faruma kenn contre ma kenn képp ku liir livre bi ni man dama far kenn wala dama contre kenn yow yaa far kenn wala nga contre kenn loolu mooy dëgg beneen bi ci topp mooy politik du diine du tarixa du diine du tarixa yenn waa Pastef non dama ne dama ne dama ne dama ne yéen waa Pastef yi non dama ne dama ne dama ne non c'est important da ngeen war a jàng da ngeen war a jàng ni da ngeen war a jàng ni c'est que pour seen intérêt combat politique yéen seen combat politique seen combat politique pour mu baax seen combat politique pour mu baax da ngeen war a jàng benn affaire mooy la relativité àdduna lépp weexul tàll lépp ñuulul kukk képp ku la wax ni Sénégal fii dafa am boor boo xam ni dafa am ñu bon am boor boo xam ne dafa am ñu baax waxul dëgg su ma déggee naan Ousmane Sonko mu sell mi sell na sellul kooku yàlla moo ko xam